loolu doyul si yeneen matières dañuy yokkaat subvention moo waral de fan yi ngeen di dégg meññee yi mooy ñi yor war a jox boulanger yi farine bi ne woon kat ñoom ñi leen nguur gi waroon jox xayma nañ ko sax ba mu toll si fukki milliards ak ak juróom-benn bon nguur gi li mu jotoon calculer moom nekkoon na si ñeent ba juróomi milliards waaye lépp luñ si d'accord ñun jëloon nañ engagement boobu pour mun ko woyofalal askan bi courant bi tam. xam nga ne bu ñu appliqué woon tey li mu jar kon mbir mi dina yokk te loolu du bi dafa bëri lu mu indi pétrole bi doon jar euh, juróom-ñaar juróom dollar ak juróom suñu budget bi ñu koy tabax ci loolu lañ ko defee tey ji mu si téeméer ak ñaar fukk ñaar foofu tey bi may wax kon gis nga écart bi différence bi ni mu réyee loolu nag mënoo ko teg askan wi directement ndax day gis loolu moo tax même ci pétrole bi bu bu ñu defee lu ëpp ñetti téeméeri milliards de subvention te at bi jeexagul dañu ne il faut ñu wàññi euh, subvention boobu ci wàllu essence bi nga xam ne peut-être ñu yoree auto essence war nañ mën na demal seen bopp tuuti waaye gasoil laalu ñu ko ndax boo ko laalee transport wax boo ko laalee boulangerie wax boo ko laalee lépp mooy yokk na waral ñu ne gasoil bi bi bi waa napp gi yor loolu dañ ko laal waaye essence moom foo ñu def ko wàññi doon parce que jë subvention bi bu jéggee dayoo lii ñu doon defi pour askan wi si mburu meeg yooyu yaa ngi dootu mën a nekk dafay baax ñu xam koom-koom nu muy doxee loolu bëggoon naa vraiment ñu ko ndax euh, Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ci Afrique depuis mbas mi jël na koom bu dëgër dëgër pour soulager maanaam pour woyofal askan bi seen seen seen jafe-jafe dund kooku nag bés bu ne dañ koy gis moo tax ma jàpp ne euh, jéego yi may dox itam ngir ñu fexe ba guerre bi jeex ndax guerre bi jeex mooy tax prix yi ñëwaat seen mooy tax subvention yooyu wàññeeku nit ñi mën a am koom bu baax mooy tax itam Afrique mën a jënd li nga xam ne soxla na ko mu mel nu engrais mu mel nu euh, blé mu mel nu yeneen i produits yoo xam ne dafa am solo ci suñu dund. te bu amul rek dina andi jafe-jafe ak ndey moo waral déplacement yi ma defoon ci Russie ak tey jii France ginnaaw OCDE euh, bu ma gisee président Macron tam moom it nga xam moo yor Union européenne ñu jokkoo nag ñoom wan leen ne kat ñun Afrique am nañu problème te bëgg nañu problème yooyu ñu ànd si ak ñu saafara parce que bu amulee rek damuy yàq bu rek yem si ñun waaye dana law si adduna bi yëpp te ñun du ñu ñoo sooke mbir moomu ndax xeex bi du mënul xaj fii yëpp loolu xaju fii moom laa la doon wax tey dañu amoon ay jafe-jafe ci mbiru dem déeg dëkk bi surtout ñu amoon jafe-jafe ci mbir courant bi xuy bekk xamaj bi ñu gis ba nga toogee maanaam 2012 ba ngay jël nguur gi lenn lu gënoon a jafe ci Sénégal mooy courant tenir trois heures de temps ba taxoon ñuy def ay manifestation di taal ay station di lakk sax ay bureau ñu gis yàlla dogal nga jël nguur gi motul sax ci benn un an ñu gis nga def ci liggéey bu am solo lan mooy sa secret foofu monsieur le président de la république. suñu garaaw sax xam nga boo doon man sama programme bi mu bindoon ñu tuddee ko yoonu yokkute bindoon naa ci bu ñu ñëwee dañuy def mix énergétique mix énergétique mooy du ñu rek dépendre si produit pétrole bi waaye dinañu xool jaww ji dinañu xool jant bi dinañu xool ngelaw bi dinañu xool ndox mi parce que hydroélectricité donc suñu defee yooyu yëpp tey jii xam nga bu doon tey jii si pétrole bi rek lañ dépendre kenn du attan courant parce que yokk na yokkuwaay boo xam ne attanoo waaye bu fekkee ne nag jant bi am ci xëcc lu bëri xëcc lu bëri ci ci ci ngelaw li xëcc aussi lu bëri ci yeneen source alors moom mooy mix moo tax ñu teel a euh, amee capacité waaye surtout li ñu tuddee production indépendante maanaam comme mbirum courant bu yàgg bi Senelec moo doon euh, investir état bi ñu def ay gis nañ ne loolu dafa diis te dafa yéex waaye bi ñu ko ubbee nag si secteur privé bi moo tax très rapidement ñu multiplier euh, ñu jógee si juróomi téeméeri mégawatt presque tey bi junni ak ñetti téeméer ak lu topp si diiru juróom juróomi ak juróom-benn donc moo tax nag ñu régler problème courant bi te tey Sénégal day jox courant Gambie di jox courant yeneen i réew te mën jaay courant si biti donc loolu moo mooy li ngay wax secret bi moo doon d' abord bi pour bañ a dépendre si benn source comme développer vraiment euh, euh, production indépendante amoon na sax bu njëkk ba waaye euh, dañ ko dañ ko baral dañ ko yokk loolu tam mbirum courant bi noonu la demee mbirum yoon itam dem bi ak dëkk bi di ngeen changement yi ci am pont yu mag yi nga xam ne am na su ma koy fàttali. comme bu Sénégal bi dafa yàgg. bu mhm. Sénégal bi dafa yàgg. macha allah. Mhm. mooy ak ah, sunu kii nag taayal ak sunu waxtaan bëgg yow dinañ. si yow bu yàqante danga ko si condition yi doy waar bi yàlla def ñu mottali liggéey boobu ak suñu mbokk Gàmbi yi ñu Euh, ci Casamance am na pomm yu bëri de yoo xam ne ñu ngi koy liggéey pomm juróom yi war nañu ko liggéey même pomm Ziguinchor te boobu aussi bu mag a mag la. Mhm. moo tax ñu liggéey ak suñu partenaire pour financement yi ndax pomm bu motee neuf cent mètres rek euh, nekkatul pont bu ndaw. fu ñu mhm. euh, moom pont Nelson Mandela gis ngeen ne pare na. Mhm. ak yeneen ak yeneen pont yoo xam ne ñu ngi ci. ak biir Dakar ci même niveau bi la ñuy embouteillage mhm. auto point wax na teer bi de première dame fàttali ne ko ñoonu def nga loo xam ne lu jafe woon loo xam ne dañ doon doon gis bitim réew muy ay teer ñoom tramways tey président de la république falu nga xam ne dañu amoon jafe-jafe courant mu lijjanti courant bi ñëw tey andil ñu teer nan nga def bandal ñu teer monsieur le président de la république waaye <laughs> première temps man président laay laaj yow tamit mooy <laughs> ruube bàyyi ko man lay ruube. <laughs> xam nga nag li ma gën a neex. ndax lu tax dafay transformé daf ñu jëlee fenn yóbbu ñu feneen beneen niveau boo xam ne fa la bi toll réew yi gën a moderne système transport yooyu lañu donc ñu bëri tey dañu tiit bu ñëwee Sénégal gis ne. train électrique moo fi nekk bu gaaw aussi te teel boo xool ci gaawaayu autorail yi mooy ñaareel benn rek mu ko gën a gaaw ci xeetu autorail mooy TGV grande vitesse bi nga xam ne moom ay ñetti téeméeri kilomètres lay daw ak ñetti téeméer ak ñaar fukki kilomètres trois cent vingt teel ma topp cent soixante kilomètres après nga ñëw ci li ñuy wax RER boo ñëwee bi France Réseau Express régional ñoom cent vingt kilomètres te doog a ñëw si métro yi nga xam ne quatre quatre vingt kilomètres dañuy daw ba ci tramway bi nga xam ne ay presque dix la ci biir dëkk ah, ay ay quarante kilomètres am kon loolu dafa am solo te it courant bi muy daw du carburant dafa dafa bokkaat si luy defal euh, environnement mais surtout li muy déplacé si nit dafa bëri waaye terre bi gis nga ñu ngi koy boole BRT muy lu bees ci Afrique muy bus transit rapide yooyu muy oto bus yoo xam ne d'abord bus électrique ñu jël option kon du doon gasoil du doon essence courant lay doon bus yi di ñëw. waaw oh, macha allah loolu moom loolu moom loolu moom loolu moom sénégalais dinañ ci kontaan. Hmm. Hmm. Hmm. macha allah environnement bi. ba pare bus yooyu dañuy am seen yoonu bopp boo xam ne yeneen oto yi duñ ci jaar. yeneen euh, usagers yi duñ ci jaar lu tax dañuy gaaw dañuy yàgg donc nit ñi dinañ war a mun léegi bàyyi seen i oto seen kër. Mm-hmm. jël BRT ñu jël Ndakaaru wala dem fi ñuy dem léeg ñu connecté de jël TER bi dem fu mel ni Tëngéej wala fu mel ni Diamniadio dem aéroport donc interconnexion boobu ak li ñuy wax multimodalité maanaam jógee ci bus dugg si train jógee si train dugg si bus jël jël taxi. loolu yëpp dafay dal yomb ci anam boo xam ne peut-être benn boo jógee sa kër ticket benn bi ngay jël dana la may nga dugg bus bi wàcc jël teer bi wàcc jël jël jël oto bi la yeggale bërëb ba ngay yegg. Mhm. loolu nag dafa bokk kam ci évolution. Mhm. lu bees la nag tam ci Sénégal. Mhm. voilà te dafa ànd ak jamono ak xarala yu bees yi moo tax gis nga même ticket euh, teer bi ak ticket BRT yi application. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu ne ne Afrique bu nekk gox boo xam ne dañuy nekk ci ginnaaw ginnaaw yeneen réew mais ñun dañuy ñëw rek ànd ak mm-hmm. te Sénégal aussi suñu ndaw ñi on il faut s'en féliciter vraiment adapté nañu. wàllu économie numérique ak parce que liggéey bi xale yi war am aussi foofu surtout lay jóge mooy liggéeyu bureau dafa dépassé ndax booy xool réew ñëpp mënuñ liggéey bureau bureau di am payeur par weer lii ngay def ni métier mhm. boo xam ne yow self self man blogueur mhm. wala mm. loolu lañ war a xoolee liggéeyu ëllëg mm-hmm. et non pas rek dem bureau ba xëy ñëw wala état moo lay employé entreprise képp ku nekkul ci loolu rek ñu jàpp ne yow bokkuloo mm-hmm. informel mm-hmm. am na solo xam naa ni waxtu bi daf ñuy xoj mais monsieur le président euh, enseignant ñëw ñu gis jamono ji ñëpp nekk si crise si àdduna bi ba covid bi duggee ba léegi dëkk yi bari ay usine tëj nañ fa ñu bëri dem chômage ñu gis tey Sénégal travaux yi mu ngi génn si suuf si macha allah fépp a ngi tabaxu Sénégal ñu gis tey enseignants yi nga defal leen lu am solo lu gars yi doon yàgg jooy nan nga def ba tey dëkk yi yépp soxla xaalis yow nga am xaalis boo xam ne taxaw nga si enseignants yi <laughs> waaye première dame première dame bàyyi ñu def sunu sunu kii nag <laughs> bu yàq sunu waxtaan <laughs> waaw

di bañ a mën topp li ñu bëgg yëpp c'est que dafay diis te état moom xam nga day day day ngarale tànk te ñëpp la war a topp. Mhm. parce que loolu am am solo la. da ngay tëddee njàqare voilà da ngay tëddee njàqare mhm. mais am bi na li ñuy wax le panier la ménagère yokku na le coût de la vie yokku na euh, état bi def ne malgré subvention yi ñu def pour askan bi yëpp dañu xool aussi salaire yi ni ñu koy yokkee mhm. moo waral augmentation yi di augmentation nag yu historique lu am solo mais loolu yëpp sacrifice la mhm. bu ñuy def pour suñu askan bu ñuy def pour suñu réew euh, du suñu am rek dañu yem aussi ah mhm. dañ ko généraliser duxaase naa rek bon ñoom nag ñoo gën a siiw xam nga ne ñoom comme a koy mhm. naa ne léegi daal vraiment li li li ñu waroo mooy ci am euh, examen yi ñu jox ko si jàmm ak salaam ndax yi mën a teel a mhm. benn euh, plateforme boo xam ne li ñu tuddee pacte Mm-hmm. stabilité boo xam ne mën nañu wax ne fii ñeenti at yi ñëw ba juróomi at yi mm-hmm. nangu nañu ñu signé na ñu nag jàngalekat yi ne vraiment léegi nañu bàyyi grève yi du tere dinañ waxtaan nag si lii gën a defar école mm-hmm. ba nga xam ne vraiment ñetti at ñeenti at yi daal euh, kenn du grève ndax grève lu mu yàq waaye bu fekkee ne xale bi at mi ñàkk na si benn weer la ñaar benn weer ci école bu waroon def juróom-ñeenti weer te bu a at bu nga def ko. Mm-hmm. su motee juróom-ñeenti weer mën nañu xale bi perte na une année de formation. Mm-hmm. donc niveau bi dina baissé qualité formation bi dina baissé te loolu a ci réew mi baaxul ci a du réew. Mm-hmm. donc day baax nag léeg-léeg ñu stabiliser bu état bi defee effort daal yu toll nii yi ñu def tey te nga xam mosul am mosul am loolu mooy dëkk aussi. ci wàllu augmentation ak sacrifice te loolu xol mooy may xol mooy tax nga na lii kat métti na waaye nañ ko def pour suñu école nañ ko def pour suñu jàngalekat mhm. nañ ko def pour suñu agent de l'État mhm. mais aussi nañ ko def pour suñu askan ci kaw ñu jàppale leen ñoom itam ci cher ay dund bi mhm. ci subvention yi ak ci lépp li mhm. euh, fu ñuy mujjee mënuñu non mënu non dinañu euh, Air Sénégal bi tamit gis nañu amoon nañu ay jafe-jafe avion euh, ñëw jëndal a ah, waaw. waaw mooy laalaa Air Sénégal bokk na ci bilan parce que manqué woon nañu ay avion tey ñu gis Air Sénégal tey nga andi fa ay avions yu bees loolu yëpp tey noo def ba andil sénégalais ay Air Sénégal léegi sénégalais yi namatuñ sax jël yeneen vol yéene bi mooy vision bi ak ambition. voilà plan Sénégal émergent bi ma programme yi ma fi fekkoon plan euh, de lutte contre la pauvreté maanaam li ñu def ba xeex ndóol gi loolu baax na loolu waaye doyul pour indi richesse ci réew kon plan boo xam ne ñun liñ Sénégal richesse en waaw Sénégal émergent ak axe yu leer yu ñu bind nañuy bi ñu ñu ñu transformé mbéy mi pour di béy lu ëpp li ñu daan béy loolu nag moo waral ñoo ni tracteur yi yokk surface yi ñu béy yokk subvention ci engrais yi ba tax mbéy mi li ñu daan am li ñu am léegi mu ëpp li daan am doyagul nag parce que amagul autosuffisance fépp waaye booy xool soble bi tey am nañu autosuffisance li manqué mooy am ay magasin yoo xam ne bu bu bu soble si ñoree ñu mën leen fa teg lu toll juróom-benn weer su ko defee dara du yàqu ma defee at mi yëpp ñu mën a ñu mën a am suñu soble boo xool tomate tey am nañ ci autosuffisance mais am nañ des problèmes de stockage ñu ngi ciy liggéey boo xoolee ceeb bi des na waaye dem nañu presque de am un million trois cent mille million quatre cent mille tonnes il nous faut ñu yegg ba un million sept cent mille léegi avant un million six cent donc ñu ngi jéego jéego yu solo euh, loolu nag li ko waral mooy euh, subvention yi ñu def ci wàllu intrant yi engrais yeeg euh, jiwu bu baax mais aussi machine yi ak aussi accompagnement bi prix producteur prix rémunérateur te war nañu aussi transformer suñu gerte gis nañ ne tey huile de palme réew yi ko doon joxe naa leen duñ ko génne ndax gis nañ tey huile de tournesol manqué na kon huile gerte bi nga xam ne mooy ci gën a gën ci àdduna bi la xëy na seeroon na waaye tey war nañ ko mën transformer téye ko ñu ne ndax suñu réew bu euh, na. moo tax xam naa ne dañ koy euh, daanale rek mooy tey Sénégal mm. am nga ay opposants tey waaw jot na dig ma may foofu nag première dame may ma rek nag <laughs> tey am nga ay opposants Sénégal ñu gis opposition bi. Euh, bu ñuy wax ci presse bi ci télé yi ci internet bi du ñu wax ne que président liggéeyul ci télé bi liggéeyul ci enseignant yi liggéeyul ci leneen lenn la ñuy dégg seen wax mooy seen président bi ngeen am day dooleel borom ñaari tur yi tey nag yàgg nga dem si télé sax tubaab yi ak di recevoir ñoom Barack Obama di wax anglais ak français sénégalais ñu ngi lay déglu actuellement ñu ngi sama Facebook ñu ngi si presque 2000 personnes ñu ngi seetaan sur TikTok 3000 personnes ñu ngi connecté di seetaan tey si mbirub borom ñaari tur yi opposition bi di topp suba ak ngoon di dugal si kilifa diine di leen ko wax xam naa ne kilifa diine duñu leen mës a gëm mais di. wax askan bi seen président bi ngeen am day dooleel borom ñaari tur yi tey bu ma la doon laaj nga wax ak sénégalais noo def ak borom ñaari tur yi bokk maanaam monsieur le président ah waaw foog mu leer tamit quoi. non xam nga. Mhm. Ah, nit moom moom nga nekk opposition wala pouvoir mais lépp lay wax rek na am ne na am base boo xam ne nangu dëgg la. Mhm. parce que nag mën nga am say conviction conviction yi nga taxaw di waaye bul sos sos du tax nga jot ci réew sos du tax nga am na war a doon am. borom ñaari tur li ma ci wax mënu ko passé li ma ci def mënu ma ko passé barke démb organisation mondiale de la santé fii ci Genève même Sénégal ak Libye ñoo taxaw ne duñu wote texte boo xam ne mbirum wér gu yaram la de waaye dañ ko si dugal ñoom dañuy tabaxal rek dugal dañ même bu ñuy wax internet boo liirul lool lool lool di nga gis si biir am na phrase boo xam ne wala page boo xam ne daañu ko dugal leen nag ko état bi si ne ñu ne ah kon yooyu na ko si ñëwoon naa. ma wax samay ambassadeur sama gouvernement ku fi dox dox. Mhm. wala am vigilant da di dugal si document international boo xam ne. Mhm. danañ ci def lu ay na si luy légaliser mbiru ñaari tur yi xamal ne non seulement dinañ def sanctionné mais dina war. président de la république dañu war politique bi leer na parce que loolu mooy suñu politique mhm. ñaareel ba may jàppale Idrissa Keroog te tax ma dugg si parce que tant que affaire football la woon rek man dama si doon wax ne bu ñu demee na ay homme politique fii ci réew mi ma nekk tey France di ci wax ak ñeneen nañ ko sanctionné mhm. du leen ko si wax ma ne nag jot nañu ne ñu dugal suñu loxo mhm. parce que Idrissa Gana bi dafa def li mu war a def xam boppam newul na dafa bañ kenn waaye xam na ne moom bu so ma ne boobu ñibbi si Sénégal bu joué daan bi yóbbu dootu ko jar dara. Mhm. loolu laa wax ñenn ñi kon moom dafa def luy waree som ñu war ko si jàppale nag contre kenn waaye def na lu am maanaam booba nag booba naa ñuy wax nan suñu nguur gi. Mhm. ñuy jàppale borom ñaari kër ñoom fu ñu nekkoon ko jàppale woon ñu ko Sénégal na mhm. ko soutenir kon loolu wax ju yàqu la nit nag bu la neexee mën nga jël loo xam ne dafa périmé amul bopp amul genn nga nekk si biti ñun dañuy wax aussi dañu soxla borom ñaari tur yi dañuy borom ñaari tur yi kon finalement ñeneen na la yow sa réew amul tolérance nangam nangam parce nangu leen changer seen loi ñii nekk sa biir réew ñenn ñi naan la yow nañu lay jàppale kon loolu moo di yàqu Sénégal daal man la wax du ma ko changer nguur jaral moo ko si àdduna. macha allah du ma mos a toog man sama gouvernement. ndeysaan surtout pression bu mën a jóge ci àdduna bi may changer wax naa dafa war a farankulaay bu ñu fexee bi président bu wax kàddu bu moom na fexee xam naa ne Sénégal ku ko <laughs> dootoo ko fekk <laughs> ndeysaan d'accord donc ma jaajëfal la ma bàyyi la sénégalais ñu ngi lay seetaan lan ngay mujj wax sa kàddu boo xam ne eh, nga tàggatoog sénégalais maanaam. xanaa ñaanal jàppale leen wàññi coono bi jàppale jàppale ñu ñun ah, seen place koom-koom bi yokk ak naataange ci Sénégal vraiment saa yu ma jullee dinaa ñaan jàmm ci Sénégal stabilité du Sénégal. danaa ñaan bu terrorisme mos a dugg suñu